abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala wa man walah mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi balu ñépp xaq di baal ñépp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci xadiis boo xam ne xadiis la bu ama am solo xadis la boo xam ne méngoo na lool ak tolluwaayu jamono ndax dafa nekk xadis boo xam ne day waxtaane ci ngëneeli weeru korite te mbokk yi kenn ku ne xam ne ne ñu ngi ci weeru korite génn ci xadis bi ana lan lay wax ci weeru korite xadis bi de dañuy jàngal ne weeru korite weer wu rafet a rafet la weer wu am barke la ci wàllu takk soxna ak yeggali te mooy céetal kon képp kuy wut soxna ba ñu nangul la ngay wut weer wu rafet woo xam ne danga ci dàkk barke ngir bëgg ci ngir bëgg ñu takkal la ci soxna wala weer wu rafet woo xam ne danga ciy dàkk barke ngir bëgg cee yeggale muy céetal tànnal weeru sowaal weer la wu am barke woo xam ni sëy buñ ci takk xéewal rekk a ci am barke rekk a ci am waaye kuñ ci céetal itam céet googu barke rek lay am xéewal dong lay am mbokk yi xadiis bi na aïcha radiallahu anha moo ñu ko nettali kon nañ ko jéem a jàng ba noppi soog di ñëw ci di ko jéem a tekki xadiis bi nii la tëggoo dane an aïchata radiallahu anha qaalat tazawwajani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi shawwal wa banaa bi fi shawwal fa ayu nisaai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kaana axdaa indahu minni rawaahu muslim sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ma denc ci weeru shawwal te ci weeru shawaal lañ ma jébbale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon saydatuna aïcha bi nga koy dencal yonent bi sallallahu alayhi wa maanaam bi nga ko koy takkal bi ñu fas sëy bi ngir saydatuna aïcha nekk soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëy boobu ñu ngi ko fase woon ci weeru weeru korite waaye saydatuna aïcha bi nga koy jébbal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jébbal gi mi ngi amee woon ci weeru korite moo tax sayyidatuna Aïcha ne tazawwajani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii shawwal ci weeru korite la ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dencee ci la ma takke ci lañ takke sëy bi wa banaa bi fii shawwal te ci weeru shawwal lañ ma jébbale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu sampub laaj nag ne fa ay nisaai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kaana axdaa indahu minni mu ne soxna yi bi kan moo ma ci ëppaleb cër ci ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam defe naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du sayyidatuna Aïcha rek la yoroon ci soxna waaye yoroon na ko yoraale yeneen moroomi jigéenam waaye mboolem jigéen ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yorondoo woon ak sayyidatuna Aïcha amu ci kenn ku ëppale Aïcha ab cër ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw doy na ab cër rek. li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci moom ne xudu nisfa diinikum min hadihi alxumayra nee na seen genn wàllu diine de leen ko roote dee leen ko tibbe de leen ko taataane ci soxna su xonq si soxna su rafet sii te mooy Aïcha radiallahu anha doomu Seydina Abu Bakrin bi waaw kon mbokk yi képp kuy takkati soxna waxuma ne weeru korite rekk rafet de waaye weeru korite mooy weer wi gën a rafet ci denc soxna ndax ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam dence woon sayyidatuna Aïcha ci lañ ko jébbale woon sayyidatuna Aïcha kon képp ku ñuy fasal ab sëy ngay tànn weer wu rafet di ca dàkk barke di ca gàtt nga barke tànnal weeru shawaal képp koo xam ne dañ ne ah yow de sa soxna si war nga koo yeggale war nañ laa jàppal bés nga céetal ko ngay xool weer wu rafet weeru wu rafet woo xam ne ca ngay tànn bés di ca dàkk barke tànnal weeru korite waaw xadis boobu muslim moo ko solo imaam nawawi nag def na ci commentaire bu am solo nee na fii istixbaabu taswiji wa tazawuj wa duxuli fii shawal kon xadis bi dañ ciy jànge ne dañ ciy jànge ne weeru shawal sopp nañ lool ku ci maye sa doom kon bu nit ñëwee di la ñaan sa doom wala jigéen goo yilif nit ñëw di la ko ñaan bëgg ko soxna nga bëgg sëy ba am barke ngay dàkk weer wu rafet maye ko ci weeru weeru korite dàkkal weer woowu waaye képp koo xam ne yow ci sa bopp yaa bëgg soxna di ko ñaani ñu war laa may soxna ngay tànn weer wu rafet weer wu am barke di ca tànn bés boo xam ne ci lañ lay takkale soxna tànnal weeru korite nga tànn ca bés bu la neex wala bés bu rafet wala bu la jubu waaye képp koo xam ne dañ lay jébbal sa soxna ñu ne laa sa soxna si de war nañ la koo jébbal ngay tànn weer wu rafet wu ñu lay jébbalee sa soxna xoolal weeru korite nga tànn ca bés bu rafet kon daal weeru korite mayee ci ab sëy mayee ci sa doom mu sëyi wala jigéen joo yilif moo xam sa doom la wala sa jarbaat wala sa sët wala lu mu mën a doon nga mayee ko ca lu rafet la waaye itam denc ca soxna lu rafet la waaye itam ku ñuy jébbal sa soxna nga nga tànn weeru sowaal ñu jébbal la ca soxna loola itam lu am barki la waaw moo tax mu ne wa qad nasso asxaabuna ala bi hada alxadis boroom xam-xam yépp bind nañ ne weeru sowaal daal sopp nañ lool ku ci tànk takk soxna sopp nañ ko ci takk soxna sopp nañ ko ci céetal sopp nañ ko ci maye soxna sopp nañ ku ko tànn moom weeru sowaal ñu jébbal la ci sa soxna te ñi ñi bind loolu ci xadis bi lañuy sukkandiku mbokk yi xadis bi Aïcha mooy ki ko nettali ma nga ca saxiixu muslim kon weeru korité ngoog lii rek neen ngëneel la ci weeru korité kon weeru korité li ci nekk ci ay ngëneel ak la ak jaamu yàlla du jeex ñu ngi leen di tàggoo fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltiin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter ak di ndax fi la gën yaatoo jaa ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.